xaw ma woon fay fay facture xaw ma woon tey xam naa lépp parce que je me suis responsabilisé à le faire bu ma fayul sama kër amul ay dem kër bàjjan kër umpaañ dama koy fay par force donc l'Europe te responsabilise par la force nga xam facture yi lépp da koy xam donc kenn du la jox feuille naan la liiral da nga koy comprendre Sénégal loolu la manqué réew mi ku la gën a réew la ñuy jaay ku la gën a xamadi ku la gën a buccërtiku ku la gën a bañ askan wi ku la gën a bañ réew mi mooy réew bu ëpp lu ñu patriote mais réew bu gën a ñàkk patriote Sénégal la am moo loolu moo ma gën a metti mooy muuma boobu ñu jàpp di foowee patriote patriote kii patriote la kee du patriote kii kenn du ci patriote ci ñoom xamuñu sax li patriotisme kenn du ci tayle moom ay intérêt personnel am pour intérêt commun kenn tant que mënoo tay say intérêt personnel pour des intérêts communs tu n'es pas patriote les règles primaires du patriotisme et le Sénégalais n'arrive pas à le difficile pour lui de le de sacrifier sa vie pour la vie des autres doon sa sondel sondel taal sa bopp pour leeral ñeneen ban Sénégalais moo la koy defal balaa maa dee ñu toog naan patriote patriote jël patriote daal def patriote moom mooy kuy tayle ay intérêt pour intere général bi patriote mooy ku amul personnel am koo xam ne moom dafa dem si développement personnel am moom mooy le développement commun kooku mooy patriote et c'est des règles primaires bu Sénégal mënul def wala bu jafe ci moom pour mu def ko patriote du làmmiñ patriote doxalin la patriote concept la idéologie la dund la dund dund concept làmmiñ làmmiñ bàyyi leen patriote bu ngeen di yàq ngeen deru patriote golo gu jóg na patriote baabum bu jóg na patriote mbaam xuux bu jóg na patriote nit boo xam ne intérêt rek moo ko ñu ñor mu naan patriote ñoom pour ñoom Ousmane Sonko la àndal moo lay def patriote n'importe quoi patriote dund la c'est comme ne man musulman la musulman dafa am lu lay def musulman munoo di naan say sàngara di tox sab yàmbaar di njaaloo naan musulman da ngay kàcc doo musulman da ngay kàcc boo tuddee Mouhamed sax defuloo musulman il fait du n'importe quoi yàlla waxul loo looy def yëpp yàlla waxu ko nga ne musulman da ngay musulmanteur le christianisme dafa teg ay point lii mooy tax ñu doon chrétien lii mooy tax ñu doon catholique boo ko deful doo catholique boo ko deful doo chrétien da ngay fen patriotisme noonu la mel ay ponk la tant que munoo tay sa bopp pour les autres tant que munoo fàtte sa bopp ci kanamu ñeneen ñi tant que munoo tay la lépp lu nga yor pour le besoin commun doo patriote patriote du làmmiñ patriote jëf la doxalin la patriote dafa tar dafa metti Patriote dafa tar lu metti la moo koo xam sa réew rek la ñor sa réew bu soxlaa nga pare pour dee nga doon martyr sa réew rek la ñor dara ñor la sa baay ñoru la sa yaay ñoru la sa maam ñoru la sa nijaay ñoru la sa réew rek la ñor sa réew rek la ñor sa réew rek la ñor luy développé sa réew rek la ñor sa réew rek la ñor dangaa tay la sa kër tay la sa koñ sa réew rek la ñor kooku mooy patriote sa réew rek ka la ñor kenn ñoru la sa réew rek ka la ñor képp ku sa réew ñor kooku ñor na la képp ku bañ sa réew kooku ñoru la da ko war a xeex kooku mooy patriote patriote yombul du caaxaan jihaad la jihaad jihaadu nafsu patriote égal jihaad nafsu faat sa bànneexu bakkan loolu mooy patriotisme di traverser lu ne di xam ni sa réew moo la ko jaral loolu mooy patriotisme loolu mooy patriotisme nañ gën a farlu nañ gën a farlu pour suñu réew nañ gën a joxe pour suñu réew nañ gën a tuur suñu ñàkk ngir suñu réew nañ gën a tayle suñu dund ngir suñu réew suñu réew rekk fi nekk suñu réew rekk bu baaxee ñun ñëpp baax bu bonee ñun ñëpp bon te dafa bon moo tax ñu ñu kenn liggéeyut dëkk bi yëpp kenn liggéeyut tout le monde boo newul élève tu es dans l'informel lan nga menuisier lan nga maçon lan nga tôlier lan nga tëpp boo gisee koñ kenn sol costume xamal ni banque lay liggéey ji wala mu ngi dem liggéeyee ci bureau dugal Sénégal nga génne koñ bi yëpp bopp koñ ba bopp koñ sotti nga jël élèves yi tegee nee nga jël ñi ngi nekk ci fonction publique bi matuñu ñaar ñett ñeneen ñëpp ils sont dans informel le secteur informel secteur bi nga xam ni kenn cadré wu ko kenn jot amul norme amul dara amul retraite amul tous ngañ sa muni la am mbaa ñàkk dund mbaa dee live bi cooki la ñi ay apprenti car rapide ñi ñi ñi ñi ñi coxeur ñi ñi ñi menuisier maçon cag-cag amul penn avenir quatre-vingt-dix-neuf pour cent waa koñ bi yépp ñi ngi secteurs yu amul avenir amuñu retraite amuñu droit à la retraite amul cotisation dara amul l'informel loolu la Sénégal di doxee comme jungle dund ba dee foofu amul patriotisme tant que c'est dans l'informel y a pas de patriotisme rey sa rey rey sa morom la parce que yaa ngi ubbi sa boutique di xaar luy jar fukki dërëm nga jaayoo ko mille cinq cent amul patriotisme ku la da ku la mën a c'est l'informel c'est l'informel dara teguwul ci yoon c'est l'informel réel bu lijjanti loo yóbbu sa kër loolu bu ñu koy dundee patriotisme du am loolu mooy dessous de table sous table loolu la ñuy woowee fii dans le noir travail dans le noir quatre-vingt-dix-neuf pour cent des Sénégalais travaillent dans le noir presque daa ngi liggéeyal koo xam ne cotiser lu la bindu lu la fenn dara rien vente en ligne business li ñëpp ñëppay business Sénégal lépp business de everything is business ubbiwuñ dara amuñu benn possibilité da ngay dund dund ba dee retraité juddu retraité doo mës liggéey mës liggéey dóor marto teg lépp loolu moo Sénégal amul usine lépp usine yëpp tëj na tout tout est au black tout